kii sama xarit la Alius la tudd yàlla dogal du jullit ay moom katolik la bëgg sëñ Touba fii ñu nekk ci gox bi lépp lu murit yi def da ciy taxaw ba dagg na rosi Touba ca kanam kon Alius noo gisee liggéeyu Touba ca kanam. kontaan rek kontaan rek kii moom amul xaajale moom amul xaajale yoonu sëñ Touba moom ñëpp xaj nañ ci. sëñ Touba rek man moom dem naa ba sëñ Saliou sax lañ may wooye ndax bëgg sëñ Saliou waaw man yoonu Touba moom lu ci def rek maa nga ci leen di jërëjëf yéen ñëpp. jërëjëf